auzubillah bismillah inna waliyallah jërëjëfa sëriñ bu mag bi jaaraama muritam bu mag bi maam Lam Fall Babul Mouridine mbokk julliti mbokk taalibe yi maa ngi leen ziare jiital ci nuyoo ak ziar bi Serigne Touba Serigne muntaha mbake ñaana ko fan bu gudd bu ànd ak wér waaye tamit ñaana ko xalif général des Baye Fall ziar sama mbokk Tidiane yi xaadir yi Laayeen yi Ñaseen yi waa Cenaba maa ngi leen di nuyu di leen ziare di ziare sama Serigne sama wasila Serigne Saliou fal bu Cheikh Ibrahima fal Ndiand di ko ñaanal fan bu gudd lool bu ak wér waaye tamit di ñaanal waajuram bu baax woowee Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi lool ba li mu naal ci jeunesse bu kër li saa borom def mu àggale ko ak sagoom amaan mbégte ak contentement tewaat fii ci VFtv la chaîne des valeurs dédié o femmes seen émission bi di émission cant gi ngeen si ànd ak ki nga xamante ne nii mooy seen rakk seen soppe seen xarit soxna Marème yaay Fallou Serigne Saliou ba tax na tey nag nee naa leen bara ngaa laax jaay dangaa laax lekk ba noppi te li ngay jaay li ngay dàq gëléem mu dem ca àll ba dàq ko mu ñëw ci biir kër gi moo ko euh, gën ba tax na tey maa ngi ubbi xamante ni moo di Talla Diagne doon doomu Jurbel taala Diagne ki nga xamante ni nee naa la xale la waaye doon xale ba nga xam ne macha allah daa jël ndawam yëpp visé ko ci yoonu Serigne Touba bi bu ko defee rek damay daal di ànd ak ki nga xamante ne nii moo nekk ci technique bi di sëñ Fallou mu daal di may dugalal. Talla Diagne moo nekkoon noonu ci réseau bi ma ci profité waala bu baax a baax di ko ci nuyu moom Talla Diagne zikrullahi doon sama mag sama xarit donc nga xamante ne macha allah daf may bëggee di ma safoo waaye nee naa la jaañ naar seen yow benn boo ma bëgg rek bëgg naa la fukk ma ciy profité waale waale tamit eh, di ci may ki nga xamante ne ni mooy yaayam yaa soot doon jigéen ju mën góor macha allah ma koy ñaanal saa bi yàggal ko ba li njaboot gi nam ci jëmmam ji saa borom def eh, mu jàppandi ay ca mbokk yi comme que taala jaañ moo génne noonu ci réseau bi damay daal di ànd ak waa ñu daal di doxantu daal di dem seeti soxna Miss Mbaye Zikroullah Bay Karim macha allah soxna Miss Mbaye boo nekkoon noonu ci réseau bi ma ci profité waar bu baax baax di ci ziare waa daayira Baye Karim fee ca marché bu ndaw jël nuyoo bi ak ziar bi teg ko ci loxoy njiit lii sama papa sama xarit papa Fata Mar nga xamante ne nii daa jël léppam jox ko Baye Karim waaye mooy koy ziare tamit sama doom sama xarit Dame Mar taal ba sëñ Abdou Karim bi ay ca sëñ Fallou kon dañuy daal di ànd daal di doxantu ndànk daal dem seeti njóogu affaire Serigne Saliou ñoo bëgg Serigne Saliou borom njurul borom li gën ñoo bëgg Serigne Saliou Cheikh Saliou Mbacke lu mu doon ñoo bëgg Serigne Saliou dimbali ma ndax ma xam lu mu doon ñoo bëgg Serigne Saliou mbaadu yàlla fi ñëwoon ñoo bëgg Serigne Saliou fi tudd fi Serigne Saliou ñoo bëgg Serigne Saliou jant ji tey yaa ko waral ñoo bëgg Serigne Saliou yaa nekk sunu xol de yaa ko amal ñoo bëgg Serigne Saliou ki daal ay mayam ëpp na ñoo bëgg Serigne Saliou ma ne woon Isaaki sama dooma ñoo bëgg Serigne Saliou sant leen Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou sant naa Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou tey ñu sant Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou sant leen Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou xolub jàmm ñi yaay ki ci sax ñoo bëgg Serigne Saliou yaa ne ko sunu xol te yaa nu amal ñoo bëgg Serigne Saliou Serigne Saliou Mbàkke loo doon ñoo bëgg Serigne Saliou ku ko xam dimbali ma ndax ma xam lu mu doon ñoo bëgg Serigne Saliou mbaatu yàlla fi ñëwoon ñoo bëgg Serigne Saliou teew fi tudd fi Serigne Saliou ñoo bëgg Serigne Saliou ki daal ay mayam ëpp na ñoo bëgg Serigne Saliou baa ne woon Isaa gi sama doom ñoo bëgg Serigne Saliou sant leen Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou sant naa Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou tey ñu sant Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou sant naa Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou tey ñu san sëriñ saaliwoo moom mi nu may xewaloo moo ñu doon ay yeefaroo kenn du sëriñ saaliwu mbàkke que sant nañ la bu ndax sëriñ bu mel ni nga mel yombul sax mbàkke ma ne yow la ñuy ki nu moom sëriñ saaliwu mbàkke bur yàllaa ngi nii di moom sëriñ saaliwu mbàkke fóot nga suñuy xol jàppandal suñuy mbir yaa tax ba yàlla dinu baa Fall Serigne Saliou Mbacké jërëjëf Serigne Saliou Mbacké jërëjëf Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké jërëjëf Serigne Saliou Mbacké jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou borom jàpp ndal xabaana ndooka yaakaari jaamiru ñépp sant Serigne Saliou Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Mbacké yaa yooyoo jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf li mu defal Serigne Béthio teewu koy borom jamono ku xool Serigne Saliou yéemu ci borom jamono Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Cheikh Saliou Mbacké jërëjëf Mbacké yaa yooyoo jërëjëf mu defal Serigne borom jamono di sëriñ Saliou Touré gën a gëm borom jamono c'est Saliou Mbacké jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf Mbacké yaay yow jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf Mbacké yaay yow jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf c'est Saliou Mbacké jërëjëf Mbacké yaay yow jërëjëf borom jàppandal jërëjëf yow ba jërëjëf borom daara njurul jërëjëf Mbàkke yaa yoo jërëjëf c'est Salim Mbàkke jërëjëf c'est Salim Mbàkke jërëjëf c'est Salim Mbàkke jërëjëf Mbàkke yaa yoo jërëjëf mu defal Serigne Béthio teew koy borom jamono ku xool Serigne macha allah njoogu afiya Serigne Sali moo nekkoon noonu ci régie may profité waale bu baax a baax di ko may sama jëwrin sama xarit Serigne Sali Touré nekk jëwrin wa daayira Bamba yàlla may jël nuyoo bi ak jaar bi yëpp teg ko ci loxoom waa tamit di jaare waa ndawi Serigne Saliou jël nuyoo bi teg ko ci loxoy jëwrin ji di jaar bu baax a baax soxna Maane Saliou soxna Fatima Saliou soxna Jeewo Saalihu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare ay ca gannaaw bi ñu jógee ci euh, njoogu affaire Serigne Saaliw sëñ Faaru da may daal nga ma daal doxantu ndànk daal dem seeti Mouhamed Niang. yow yaa di ki ko am ki lee di këram sagun waay sagun sëñ Saaliw ku ndam yaa di li am. sagul waay sagul teraanga ji nga sagul sagul. wane si jox. sagul waay sagul la. sa nga am. sagul sagul. ci ci sa sagul waay sagul la. fi ne woon. sagul sagul. te yaa fi gën sagul waay sagul la. xeebu nga woon. sagul sagul. xëy la dara jaal. sagul waay sagu nga. bul beewu te bu jëreew. sagul sagul. joxel te bañ a sew. sagul waay sagu nga. solal sa ñetti xoo. sagul sagul. di way di woo ko suuf. sagul waay sagu nga. feccal ba nga ni saay. sagul sagul. yàlla di kii la may. sagul waay sagu nga. amul ku la may wëril jël ka maye ndax du jeexal sang sang be mbaake yaa yore jox nu yaay ki ko am faw nu laaj leen de njariñ yi dul lore mbaake jox ñu xewal yee nga fi rus rus nu mbàkke seer mande ji rekk fi des gaañe ay pexe jeex na amul ku la may wari jël kay maye ndax du jeexal sang bi mbàkke yaay wara maye mbële la waral coono gi ñu dëkkee yor jama di wëri xeer bal nu wan nu xewal yee amul ku la may wari jël kay maye ndax du jeexal sang bi mbàkke yaay wara maye yow mi cant gi war

ba ñëpp nii Mbàkke moo yore mbir yee ruugu la yëg yëngatu xol ba du teeti cëram sant la nak rekk a war yaa jara feccal ruugu la yëg yëngatu feccal lu mu la yëg yëngatu xol ba du dee di yaram sant la nag rek a waral jara feccal aw nu sant sëriñ bi yaa nu sant la yëru daa ku ñu defal danga koy waam ak yaa jara feccal ku ñu defal danga koy waam ay ca macha allah Mouhamed Niang bu Serigne Sali moo nekkoon noonu ci réseau bi ca ma ci profité waala bu baax a baax di ci jaare soxna na ba saali wu waaye di jaare képp koo xamante ni rek saalixaat nga maa ngi lay bég bu baax a baax di la jaare ay ca gannaaw bi ñu weesoo ki nga xamante ni moo di Mohamed Ñaamu Sëriñ Saaliw ay ca sëñ Faaru da nga may daa di gunge ma daal di doxantu ndànk daa dem seeti Papa Ndiaye Kara Ayaso, soosa jug leen déglu Moussa jug leen déglu Moussa déglu Moussa aya soodaan jug leen déglu Moussa mu taa kafe Moussa tafa mani woo woo Yaasin Yaasin ربي ساكي تالف تسخ سيني باي فرو الباسل فياسل شبوخ نواي قدوس نوري سودان سودان بمبي خلري sax di palam ko yaasin palam too bon te kon jaahil du taalif te xel leeroo wallaay ndama di sooru ñolooru ku tanga ku tanga xanaa dafa reeb am dafa reere yaasin ku dëkkale bamba ak sëriñ ñëwum dafay nar dafay nar ndeggeej ga fa nar di seefu ko fa yaasin fa yaasin ko si peesu góor na yaasin ku xam bay way nga far way gën di yoonal dëkkam xam-xam ba leer na basar ca yaasin sëriñ Tuuba ne man sama geer ga may way nga may way du déglu gewal bu xol ba di fa yaasin sëriñ Tuuba taalif a nga taalif ci saxaaba ya ma waliwu ya ma jiyaas jiyaas waye te wayo aljana foo lii lee tax ma ma lii lee tax ma lii lee tax ma ma way Cheikh Bamba nga teg ala xuluqin azim la yàlla waxoon ca sooratu nuun ci yaas li jaral madina madina safa ayca macha allah Papa Ndiaye Kara boo nekkoon noonu ci régie bi ni ma koy waxee saa su nekk mbokk yi nee naa leen li duuf ci ci nag wi xajul ci cin li waaye njaa bëggaleem xajul ci pantre kon dama koy yemal foofu rek daal leen joxaat dig daje si seen yeneen émission waaye bu ko defee rek duma fàtte ki nga xamante ni mooma daal di génne ci robb bu nice bi di sama tailleur bi nga xamante ne nee naa la yaay borom si sa door bi deba si sa xale bi nga xamante ne nee naa la bëggul daray góor mooy njëkk a a C'est le war ma jox la numéro 117, 77 la 758 71 99 numéro de 77 758 71 99 waaye nee naa du ma fàtte ki nga xamante ne nii moo ma daal di génn ci kanam Najwa Beauté ki nga xamante ne nii day sama xarit di sama confidente moom macha allah mu ko ñaanal fan bu du lool bande ak weer waaye pour nga am numéro Najwa Beauté jëlal 78 la 534 30 63 waaye tamit may jaajëfal bu baax a baax sama bàjjen sama xarit bàjjen ngoom maar séeri lamp waaye kenn du bàyyi Abdoulaye Diop xasaali ki nga xamante ni macha allah mooy borom laxasaayu naas yi ki may génne ci laxasaayu sëñ Fallou mi ngi noonu ay ca may jaajëfal bu baax a baax ki nekk ci réseau bi di sëñ Fallou nga xamante ne nee naa ko jàmm rek laa lay ñaanal waaye kenn du tonton Cheikh sama tonton sama xarit di békke bu baax a baax PDG Tata Xaar di ko ñaanal saa bi yokk ko waaye l'équipe type de la VFtv yëpp ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jaare te di leen ñaanal sa kaw ca kanam ci lu baax joxaat leen dig daje ci seen yeneenu émission cant gi jaajëf